الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أيها المشاهدون الكرام أطيب الله أوقاتكم ها نحن بإذن الله وعونه نعود معكم في برنامجكم المفضل وهو القلم قلنا لكم القلم برنامج يذاع في كل شهر برنامج يستضيف فيه ضيوف يستضيف ناس باحثين يستضيف مفكرين والحمد لله بعد تحياتنا العطرة والموجهة إلى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد مصطفى سي الذي أطاح لنا هذه الإطار أطاح لنا هذه الفرصة الذهبية والتي لا تقدر بثمن نتمنى له dawaama sixati wal aafiyati wa tawfiq wa kama nunawi juhud ibnihi hilbar a cheikh capitaine bi majhudatihi aljabbaara allahu yahdihi wa yansuru wa kama nuwajjih ayatu shukri wa taqdiri wal irfan ila mudirina almuhtaram الشيخ مختار نجاي وإلى جميع معاونيه في قناة مرشد تيفي مشاهدون الأعزاء اليوم نستضيف ضيفا كريما هو أخ وصديق وحبيب هو رفيق درب قديم وهو باحث ومفكر وهو باب آدم نيا باب آدم نيا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كما تحيي إن شاء الله الحمد لله الحمد لله malikil mulki wa xaaliqil xalqi wa mudabbiril amri hmm. yaxluqu man yashaau wa yarfacu man yashaau bi fadlihi wa yadacu man yashaau bi cadlihi wa huwa alcalimu alxakim naxmaduhu hmm. subhanahu wa taala an jacalana hmm. min ummati alislaami kama naxmaduhu an jacalana min ummati xayri alanaami sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man bi daawatihi ila yawmi ddin bidayatan سيد الأستاذ اسمح لي أن أتقدم بتحية عاطرة تليق بجلال الشيخ العالم العلامة المرشد العام لدائرة المسترشدين والمسترشدات سيدي ومولاي الشيخ سيد محمد مصطفى سي أطال الله عمره وإلى حضرة مدير التلفزيون الشيخ مختار نجاي وإلى كل من يعاون وإلى كل المعاونين الذين يعاونونه في نجاح هذا العمل الجبار كما نتقدم بالتحية إلى مشاهدينا والمشاهدات لقناة لقناة مرشد تيفي الذي يلعب دورا كبيرا في إيقاظ الوعي العام وإرشاد السنغاليين كما أقدم أتقدم بالشكر لمن هو سبب في ولمن هو سبب في حضوري لهذا البرنامج وهو الأخ السيد الأستاذ نجاس جون الذي يتقدم يقدم هذا البرنامج أشكره على هذه الفرصة المتاح لي الحمد لله شكرا بهذا التحيات العطرة وبالعبارات الرنانة مشاهدون الأعزاء يطيب لنا بداية أن نسلط الضوء على ضيفنا العزيز ونقرأ لكم سيرته الذاتية اسمه بابا آدم نيا من مواليد تشيس بدأ مشواره الدراسي في المعهد الحاج عمر فوتي تال بتشيس في المرحلة الابتدائية والإعدادية summa intaqala ila markazil falah bi koloban bi dakar haysu bada'a fihi almarhala athanawiya summa akmalaha fi mahad ibrahim samb almaaruf bi sekasi bi Thiès am alfayni wa waxid wa bizalika saafara bada xusulihi ala shahada albacloriya saafara ila masra waltaxaqa bi jaamiat al azhar alsharif waltaxaqa bi kulliyati usul diin qismal aqida wal falsafa wa taxaraja minha am alfayni wa sitta wa baada rujuucihi ila ardi alwatan tamma tacyiinuhu ka mudarris alluga alarabiya fi thanawiyati njaga ñaaw wa xaaliyan huwa mudarris fi licdaadiya fi icdaadiyati Ousmane Ngom bi Thiès kama yahtam bi tadrisi alfalsafa fi almadaris alahliya alarabiya bi Thiès كزيد بن ثابت وإبراهيم صمب إضافة إلى ذلك فهو إمام وخطيب في مسجد عمر الفاروق بتشيس هذا هو ضيفنا الكريم أما عنوان برنامجنا اليوم أعزائنا المشاهدين يدور حول وقفات مع خطبة أبي بكر الصديق هذه الخطبة التاريخية التي تكتب بمداد من الذهب وتتكررها الأجيال وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل يتيبنا في هذه الفرصة الوجيزة نتدارس مع ضيف العزيز حول هذه الخطبة التاريخية والآن السؤال الذي يطرح نفسه سيد آدم man huwa alxalifa abu bakr man huwa kayfa tuarif شكرا سيدي الأستاذ إذا أردنا أن نعرف أبا بكر نقول بأنه هو عبد الله عثمان بن عامر التيمي اشتهر بأبي بكر الصديق wa luqiba bi as-siddiq mm-hmm. li sabqihi fi tasdiqi nabi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. fi rihlati al-isra wal-mi'raj mm-hmm. huwa min as-saabiqiina al-awwaliina fi al-islaam تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببنته عائشة و له فضائل جمة في الإسلام حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق وبقيم وله مواقف كثيرة في الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الناس أحد amanu alayya fi nafsihi wa maalihi min abi bakrin ibn abi quxaafa ma sha allah waqa walaw kuntu muttaqisan min annaasi xalilan lattaxastuhu xalilan walakinahu xullatu lislaami fa talaba annabi sallallahu alayhi wa sallam an yasuddu abwaaba allati tan taftaxu tanfatihu min masjidi nabi sallallahu alayhi wa sallam illa baab abi bakrin siddiq radiallahu anhu wa qala alxassan ibnu sabit shaa'ir nabi sallallahu alayhi wa sallam fi xaqihi ida tadakkartu shajwan min aqi thiqatan fadkar fadkur aqaaka aba bakrin bima faala xayru lbariyati atqaaha wa acdaluha mhm. ila annabiyi wa awfaaha bima xamala الثاني التالي المحمول مشاهده وأول الناس حقا صدق الرسل صدق الرسل ما شاء الله وروي عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر ما شاء الله لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك بكى أبو بكر نعم فقال هل أنا ومالي لك يا رسول الله ما شاء الله هل أنا ومالي لك يا رسول الله إذا هذه نبذة نعم. من حياة أبي بكر آه الصديق الذي آه ساعد النبي صلى الله عليه وسلم ورافقه وصدقه ما شاء الله إذا أبو بكر الصديق كما ذهبتم إليه آه كان أول من آمن من الكبار أيوة xadima nabi sallallahu alayhi wa sallam alxidmata kulla anfaqa maalahu wa daxa bi nafsi wa daxa bi jamihi majhudaati li saba li sababi aw li ajli ilaa ilaai raayat alislam mhm. fa hada huwa abu bakr radiallahu anhu mhm. awalu xalifa baada annabi sallallahu alayhi wa sallam walakin lamma buyi'a wa uyyina xilaaf xalifatan muslimin huwa awalu man qaama bi xutba xutba shahira law samaxtum an taqra lana hadi alxutba xata nastamtia min simaiha فمن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يعني جاءت خطبته في فترة كان الصح... كان كان كان الناس حيرين لأن حدث فيهم حادثة ما كانوا يتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفارقهم يوما نعم بحدوث تلك الحادثة فضل الله نعم لأبي بكر أن أن يبقى له يعني شيء من ال من ال من من الهدوء والوعي نعم فلما بو يعني لما بويع نعم. بالخلافة ألقى خطبة نعم. تعتبر خطبة تعتبر خطبة العصر نعم في زمنه وفي كل الأزمنة نعم. التي ستأتي من بعده نعم ونص هذا القطب كان يعني التي تعتبر ك قطبة وزارية يعني كما كما كما يقال ديسكور على نسيون نعم فقال أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم بخيركم فإن أحسنت فأعينوني إن شاء الله وإن أسأت فقوموني إن شاء الله alsidqu amaanatun wal kadibu qiyaadatun waddaifu fiikum xawiyun indi xatta aquza alxaqa lahu walqawiyu fiikum daifun indi xatta aquza alxaq minhu inchaa allah laa yadacu qawmun aljihaada fi sabilillahi illa darabahum allahu biddulli wala yushiicu fi qawmin qattun alfaaxishatu illa ammahum allahu bilbalaa atiicuni maa ataatu allaha wa rasulahu fa ida casaytu allaha wa rasulahu falaa taacata li calaykum maa shaa allah fahada huwa nasu khutbati abi bakr khutba taarikhia taarikhia sax faalan kama kama kama dahabtum baaraka allah fikum alfatra allati جاء فيها أبو بكر يعني فترة خرجة أيوة خرجة جدا تعرفون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كارثة كارثة هزت هزت بالمدينة وهزت بجميع البقاع الأرض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جميع الصحابة كانوا خيرانين كما قلت ولكن aba bakrin faqad kaana indahu rabatata jash kaana mutmain albaal kaana kaana indahu hudu فمسألة يعني الخلافة كما رأيتم هذا جانب أيوة. ولكن لما بويع يهمني هنا كثيرا قول عمر الخطاب عمر الخطاب كان يحترمه احتراما مبالغ فيه وهذه الخطبة أيضا huwa mahall dirasatina idan awal waqfa نقف مع هذه الخطبة أول وقفة إذا كيف أول حاكم بعد النبي ما هو يتصور أن يكون أخلاقية من يعود أو من ينوب مناب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقول أول حاكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي له حسب ضوئك لقراءة الخطبة إذا قرأنا الخطبة ندرك أن أبا بكر عرف خدر من ينوب عنه فعلا ينوب من ينوب من نعم الخليفة أبو بكر ينوب رسولا دونك نعتبر أن إنسانا عاديا يعتبر insan gayru aadi aadi naam xaal nabi sallallahu alayhi wa sallam qul inna yaani yaqul la subhanahu wa taala qul innama ana basharun mithlukum yuuhaa ilayya insan gayru aadi idan fa huwa insan gayru aadi wa abu bakrin yuctabar insan aadi xata wa in kaana saxaabiyan salihan salihan bimathabati nabi sallallahu alayhi wa sallam yuctabar insan aadi naam yanuubu nabiyan nabi kaana yatalaqa waxy min allah subhanahu wa taala xalifa laa yatalaqa waxy idan fa awal dira fa awal eh, yani eh, mushkila التي تتلقاها أو يتلقاها أبو أبو بكر هو هي أنها يعني أن الناس يرجعون إليه نعم في في في مشكلاتهم في قضاياهم ولا يجد من يلقي إليه وحيا حتى يحكم بينهم وهو في موقف النبي صلى الله عليه وسلم إذا يحتاج إلى أناس يساعدونه يع... يعني يساعدونه في في في علمهم في معرفتهم في عقيدتهم حتى يصل حتى ينجح في هذه المهمة الحرجة لذلك قال قد وليت عليكم ولست بخيركم وأول حاكم أو أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتولى مسؤولية استمرارية الدعوة ممتاز imma an tastamira daawa am tatawaqaf imma tastamira daawa fi najahiha am tatawaqaf li anna allah subhanahu wa taala yaqul fi alquran bada an madaxa wa xakaa lana yani anbiya wa mm-hmm. mursalin qaal fa xalafa min baadihim xalfun adaau alsalata wattabau alshahawat naam إذا فأبو بكر يحاول كل المحاولة حتى لا يكون من الذين يقال فيهم يعني أنهم خلف خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعني فأصبحوا خلفا فضيعوا الصلاة ويعني لم يعني ما وصلوا إلى إلى مستوى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فأبو بكر عرف هذا فطلب من الناس جميعا أن لا أن أن, أن لا يتركوه نعم وحيدا في هذه المسؤولية هذا يعني أنه هو بمفرده بمفرده لا, لا يستطيع أن يتحمل, أن يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة الكبيرة هذا ما شاء الله أيوة إذا خلاصة ما ذهبتم إليه وأبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بفضل الله وتوفيقه موفق موفق موفق وهذا التوفيق من تنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم صح تعرفون بعد عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستطيع أن يذهب ليؤم الناس مر امر بان يؤم الناس ابو بكر ولكن في البدايه الامر لم يكن كذلك قام عمر بالامامه ثم كأنه قطع فقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يؤم الناس عمر وفيهم أبو بكر إذا كان كأنه كان يتنبأ بصلاحية أبي بكر صح. وكان يتنبأ بأنه سيكون قديرا بحمل هذه الأمانة وبحمل هذه المستوى يعني هذه الرسالة الجسيمة ما شاء الله إذا هذا يجرنا أن نتوقف مع مرة ثانية الرجل الذي ناب مناب النبي ولا يأتيه الوحي من حين لآخر bal innama huwa sa yactamid ala almushawara wa yactamid ala tawfiqihi alilahi idan kana indahu miza miza ahalathu an yakuna ahlan lidalik huwa tawaadu idan kayfa kana tawaadu abu bakr wa fi lxutba nara ملامح وإشارات تدل على أنه كان متواضعا ما هي فإن تواضع أبي بكر لا يكون غريبا لمن رباه النبي صلى الله لمن تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فنلمح في قطبته أنها قطبة مليئة بالتواضع لأن التواضع huwa idhaaru tanazul mm-hmm. an il martabati alladi mm-hmm. an il martabati allati mm-hmm. yani yaliqu biha alchaxs naam naam huwa an yakuna alchaxs yafir min an yunzal fii almartaba alladi yuraadu annaas an yanzilu fii إذا قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن لا يعني نستمع إلى المدح إلى إلى إلى إلى مدح الناس إليك فكان يقول اللهم اجعلني اللهم اغفر لهم مما لا يعلمون واجعلني فوق ما يظنون وكان يعتاد أن يقول إذا لقيتم المداحين فاحفوهم بالتراب, بالتراب. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد يعني أن ير أن يرفع الإنسان إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني مكان إلى مكان فوق فوق فوق فوق فوق فوق ما فوق مكانة الإنسان نعم إذا wa tawaadu sifa mahmuda tadullu ala maada ala taharati nafsi tadullu ala taharati nafsi wa tad'u ila ila almawadda walmahabba fa min tabiati nnaas an yuhibbu kullu man yatawaada wa yakrahu kullu man yatakabbar wa yataala ala nnaasi wa yanshuru altarabut li anna aba bakrin fi xaajatin ilal ila ila ila tarabuti nnaasi ila musaadati nnaasi ila muawanati nnaasi ila almunaqasha ila eh, mushawarati nnaasi wal insan la yushawir maa man la yuqaddiruhu naam naam لذلك المشاورة عبارة عن تقدير الطرف الآخر لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وشاورهم في الأمر نعم وشاورهم في الأمر في الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي نعم. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى شاورهم في الأمر حتى يشعروا بأن لهم يعني بأن وعقولهم بأن لهم ماذا ميزة بأن لهم خيمة أمام أمامك إذا فهذا الأمير الرئيس إذا نعم. أراد أن ينجح في عمله لابد أن يتواضع أن يتواضع ويتشاور الناس ويكون مستمعا ويكون له يعني قدرة الاستماع أيوة قدرة الاستماع ما شاء الله أستاذ نقطة مهمة التواضع هو النقطة الارتكازية أيوة. في القيادة الرشيدة أنا اعتدت أن أقول يعني الإنسان masalan raisul jumhuriya xarama mhm. alayhi an yatakabbar xaram naas rafauhu sax naas majjaduuhu mhm. naas yu ayiduunahu mhm. naas yu farrijuuna lahu idan isa takabbara كما كما كما سمعت الشيخ السيد مصطفى سي يقول في في محاضرة نعم إذا رفع الله نعم. عبدا في مكا يعني في في في مستوى أعلى ويبحث هذا العبد عن كرسي يجلس فيه ليبقى ينزله ينزله إن شاء الله تنزيلا هذا يعني أيوة. أن أن القادة قادتنا المعاصرين يجب أن يعلموا أن أهم الميزة هي التواضع التواضع التواضع الصحابة كانوا كانوا درسا في ذلك أبو بكر كان نموذج في التواضع انظر عمر يقول يا ليتني كنت شعرا على صدر أبي بكر فأبو بكر حينما قال أنا وليت عليكم وأنا لست بخيركم هذا تواضع في الحقيقة هو خير منهم هو خير منهم ولكن تواضعا من العشر المبشرين بالجنة وقال لست بخيركم هذا تواضع هذا ممتاز ما شاء الله وهذا أيضا سيجرنا أن نقف وقفة سالسة مع هذه الخطبة الشيقة الرائعة البيان الوذاري يعني في في في في اصطلاحاتنا المعاصر صنع الديسكور على الناسيون الرئيس يفعل ذلك وزير الأول يفعل ذلك إذا نرى أن الإسلام عنده حسبان بذلك أبو بكر أول من قام بما نسميه البيان الوذاري عند السلطة ما مفاد البيان الوذاري عند أبي بكر الصديق مفاد البيان الوذاري لأبي بكر يفيد أن القاعد إذا أراد أن ينجح في مهمته فلا بد أن يجعل الناس المطيعين يدركون أين يوجههم لأن الناس لا يستطيعون أن يساعدوا قائدا نعم. لا يعرفون أين يقود أين يقودهم أين يقودهم نعم دونك فهذا أيضا يفرض علينا ماذا؟ الصفافية نعم الشفافية الشفافية نعم والحوار والحوار لأن القائد يعني ليس معصوما نعم ونرجع أيضا إلى المدرسة القرآنية نعم دائما نعم آه لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلينا رسولا نعم أن أن أن يخلق آدم له سلطة كاملة كاملة نعم في خلق من نعم يشاء واتخاذ القرار فعال لما يريد نعم. في اتخاذ القرار نعم لكن مع ذلك قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إذا أعلن الله سبحانه وتعالى أخبر الله سبحانه وتعالى للملائكة أنه يريد خلق آدم وسمع يعني و و و و و والملائكة أيضا تجرأوا في إبداء آرائهم في هذا الخلق الجديد وقالوا لله سبحانه ماذا قال الله سبحانه وتعالى نعم أتخلق يعني أتجعل فيها, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء رأيهم نعم هم حر نعم في ماذا في إبداء آرائهم لأن الله هو الذي يعني أخبرهم بأني أريد كذا كذا دونك لهم حرية كامل الحرية في إبداء آرائهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم إذا ماذا نستفيد من هذا؟ نتعلم من هذا أن أن أن أن أن أن الرئيس أو الأمير أو من قدم في شيء لابد أن يتعايش لابد أن يجعل المطيعين على مس يعني حتى نكون على على على على السواء على الهواء سواء سواء نعم حتى نكون على الهواء سواء سواء ف yastatiuuna ay fa yuxaawiluuna musaadatahu fi najaahi ma sha allah muhimmati muhimmati idan sa sa sa sa nulaxis anna mufaad hada yani anna anna anna alqaid لابد أن يكون على بينة فيما يفعل ويدع خطة واضحة وبالتالي أيضا يتمتع بوافر من التواضع summa bichafafiya mm-hmm, mm-hmm. haha ma yajalu nnas mm-hmm. yatatalauuna ilayhi wa yaltafuuna hawla aywa yani allah seyd seyd ustaz ka anna alwaqt zahaba bina amdina nisfa waqtin wal an sa nuxiilu alkalima ila alluga al olofiya kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fii ci Mourchid TV tey nag ñoo ngi dalal sunu gan sunu soppe alxaaji baab Adama Ñang nekk sunu wóllëre macha allah ñëw ci sunu minbar bii di alxalam ñu war a weccante xalaat ci xutba boo xamante ni as Aboubacar Siddiq radiallahu anhu ñaaru xalif yonte bi moo ko defoon mhm. balaa loolu nag ñu xamle kan mooy Pape Adama Niang moom de moo ngi ganee àdduna Cees ci ay wajur yu baax commencé njàngam ca école bu ñuy tuddee El Hadj Omar Fouti Taal ca Thiès mu jàng fa ba am fa ibtidaa iyaak iadaadiyaam ci la ñëw nag fii ca ndakaaru ci markazu Falah ca la fa jànge itam ci awal thanawi mooy seconde ak première moo ngi defee terminal nag ca école bu ñu tuddee Ibrahim Samb ca Thiès muy Sekasi mu am bagam 2001 ba mu amee bag nag ci la tukki dem Égypte dem ci al mahad euh, jaamiatul azhar sharif mu nekk fa ca kulliyat usulu diin nga xamante ñoo jàngale diine qismul aqida wal falsafa ñi nga xamante ñoom ñoo gën a spécialisé wu ci wàllu euh, aqida ak philosophie moo ngi am nag euh, lijaasam ci 2006 ba mu dellu soo Sénégal nag mu dugg école normal mu génn comme jàngalekat professeur ñu njëkk ko orienté ci lycée Ndiaga Niaw léegi nag moo ngi ci CM Ousmane Ngom Thiès moo ngi yëngatu itam ci wàllu itam franco arabe yi cees di jàngale philosophie ci Zayd ak Ibrahim Samb dolli ci loolu itam moom imam la di nekk koo xamante ni dafay yeete ci jumaa ji ñuy tuddee Omar Fouti Tall euh, al Omar al Farouk ci Thiès kon kooku mooy sunu gan Cheikh Ibrahim Cheikh loolu lay nuyoo incha allah. macha allah bismillahi rahmaani rahim eh, Seydou Oustaz eh, Oustaz Ndiass ñoo lay nuyoo di la ziar waaye di jiital suñu nuyoo ci Cheikh al Mourchid eh, Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dëgëral ko sàmm ko. Mm-hmm. ba fi mu bëgg a yeggalee liggéeyu. ndonuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di mm-hmm. liggéeyu maamam yàlla na mm-hmm. ko yàlla may mu mën ko faa yeggale di gërëm bu baax ki nga xamante ne nii mooy euh, directeur télévision bi di Seydou Moukhtar Ndiaye mm-hmm. ñaan yàlla subhanahu wa yal na ko yàlla sàmm waaye di gërëm bu baax téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ngi suivre ci euh, Mourchid TV di gërëm ki nga xamante ni it moom mooy sabab ci ñu teew ci émission bu am solo bi te muy euh, oustaz Ndiassé ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla sàmm te dëgëral ko incha allah sunu émission tey moom ngi ci xutba bi nga xamante ni moom la Abubakar Siddiq defoon ba ko fale mu nekk njiitum réew doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. loolu nag contexte bi day wane ni ci Sénégal fi ñu toll émission bi day dox waxtoom pour mu mën a fàttali ñëpp ñu nu dénk réew meeg ñun ñi nga xam ne ñoo nekkandoo ci réew mi yëpp xutba bi day nekk benn fàttali nekk boo xamante ni benn plan boo xamante ni mën nañ cee jaar ci lu gàtt rek loo ñuy tënkal kan mooy Aboubacar Siddiq eh, Oustaz Ndiasse abu bakrin siddiq buñ ko doon xamale mooy kan yaakaar na dana gudd mm-hmm. waaye dana doy sëkk rek ci ne ci ñu ne moom mooy àndandob yonent bi sallallahu sallam bi nga xamante ne nii bokk na ci ñi njëkk a gëm uh-huh. eh, dana doy sëkk ci ñu ne moom mooy goro yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. dana doy sëkk rek ci ñu ne moom la yonent bi sallallahu wa sallam àndaloo nag ca ba muy dugg Médine mm-hmm. eh, dana doy sëkk rek ci ñu ne bokk na ci fukk yi nga xamante ne nii yàlla bégale na leen mm-hmm. aljanna mm-hmm. waaye dana doy sëkk ci ñu ne mooy ki nga xamante ne nii alalam kàttanam man-manam dara desalu ko macha ngir lislaam kooku mooy Abubakar dëgg dëgg résumé nga ko baax a baax mooy ki nga xamante ne moo jox léppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente ko euh, defe naa ni xutba bi mhm. bi nga xamante ni moom la jàngoon keroog mhm. keroog ba ñu ko falee mhm. dafa am ay taxawaay yuñ ci war a taxaw taxawaay bu njëkk bi mooy koo xamante ni moo war a taxaw taxawaayu yonent bi kooku nu mu war a mel loolu wane na ko ci xutba bi alxaakimul awal baada nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, xam nga ku wutu ku toll ni yonent bi war ko wuutu ci xam-xam mhm. war ko wuutu ci jikko mhm. war ko wuutu ci njàmbaar mhm. kooku li ñuy wax erreur waru la mu mu wuutu ko nag ci situation yoo xam ne dana xaw a wuuteeg bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ndax wuutu koo xamante nii laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha te yow amoo wax yi mhm. ñooñu ñaar ñooñu mhm. wuute ko dana wu euh, wuutu ko mhm, dana xaw jafe ci yow ndax yonent bi sallallahu alayhi bu mbir amaan day toog yàlla yónni jibril jibril ñëw ne ko yàlla nee na situation bi lii ak lii ak lii moo ci solution kooku nag bu Abu Bakri ñëwee wuutu ko te moom laa yatalaqal wax yi wax du ñëw ci moom kon li muy mën a demee rek mooy ijtihaad mhm. ak lan ak mushawara mooy lan mooy di jéem a nàmm mhm. di jéem a mën a nattale di jéem a mën a euh, justifier di jéem a mën a lu ñuy wax analyser mhm. xew-xew yi am noo koy nattaleek ba mu amee ci yonent bi sallallahu lam ca waxoon mooy dañu dugg ci xiyaas ak ijtihaad waaw oustaz ah. dama bëgg ci lu gàtt nga tek tekkil xutba bi xutba bi lan lay wax. Eh, xutba bi ci lu gàtt mooy keroog Abu Bakrin bi mu taxawee. Mhm. xutba ko nag ci circonstance yu xawoon a doy waar ndax. Mhm. saxaaba yi ñoom ñëpp seen xel gëlëmoon na xamatuñu fu ñuy teg seen tànk. Mhm. yàlla may Abu Bakrin ci tawfiq ilaahi moom mu dese. sagoom. ba mën a delloo siwaat nit ñi. ndax xutba ba ma nga jiitoo ca mhm. bam naan leen man kaana yacbudu muhammadan mhm. fa inna muhammad xad maat mhm. wa man kaana yacbudu allah fa inna allah xayun laa yamut ma nga commencé ca bam ne leen xam leen ne kat ku doon jaamu yàlla yàllaa ngi fi waaye ku doon jaamu yent bi mu neex leen mu naqari leen yent bi dem na keroog ba ñu dajee ca eh, saxiifa bani saïd daal di koy def muy xalifa mhm. mu génn def discours à la nation mhm. ne ay yéen doomu aadama yi mhm. xam leen ne kat fal ngeen ma waaye gënuma leen loolu njiit bu ne war na ci bàyyi xel fal ngeen ma gënuma njiit bu ne war ngaa bàyyi xel ci ñi nga jiite am na ci ñu la ëpp xam-xam am na ci ñu la gën jikko am na ci ñu la gën a sonn ci njàng te yàlla falu leen kon mhm. gënuma leen mhm. fa in ahsantu mhm. fa a'inuuni fii ak maa ngi ci rafetal ngal la bàyyi leen détails yi te dimbale ma ci li ma nekk ndax yéen laa koy defar ñëpp jëriñu waaye wa in asatu fa qawwimuuni heure bu ma wàccee aw yoon nangeen ma teg ci aw yoon na xam ne kat dëgg mooy mooy mooy mooy mooy euh, dëgg mooy kóolute mooy sécurité waaye nangeen xam ne ay njuuj njaaj hmm. war la war la xam ne amul ku faible ci yéen hmm. fii moo ngi am dëgg hmm. waaye na ngeen xam ne amul kenn ku am kàttan ci yéen su fekkee ne nekkul ci dëgg est-ce que te it xam ne li ñuy wax xeex jihaad jihaad nag du xeex rek mais xeex ak sa bakkan Mhm. na nga xam ne investiru mhm. na nga xam ne engagement mhm. bu dañee ci aw doomu réew doomu réew moomu c'est boo ñu toog engagement engagement c'est sûr waaw bu dañee ci doomu réew rek nañu toog te xam ne développement engagement da leen di da leen di da leen di wan ginnaaw te it am réew su fekkee ne dem nañ ba rusatuñoo def lu bon waaye rusatuñ ko sax siiwal nañu xam ne kat nañu toog te xam ne balaa ak musiba mi ngi ci seen kaw mm-hmm. topp leen ma fii ak mm-hmm. maa ngi topp yàlla mm-hmm. bu ma toppatul yàlla amatu leen droit ci di ma topp macha allah mbokk xutba bi ni ko imam Adama firee war nañ def ay jàngat jàngat bu njëkk bi moom mooy tekki ni moom dafa nekkoon ku humble kaana mutawaadian nan lay wane loolu muy ayuha qad wulitu aleykum walastu bi xayrikum fal ngeen ma de waaye gënuma leen loolu nag lañ ci génnee tawaadu am ci nu mu gën a gaawee fal ngeen ma hmm. waaye gënuma leen gënuma leen loola est-ce que Abubakar gënu leen du nekk du hmm. nekk lu xarib ci ñun du du nekk lu lu lu lu étrange ci ki ko wax hmm. ndax ki ko wax mooy kan mooy ki yaroo ci keppaar gu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon tele ne moo gën du leen nangoo gën mhm. ndax olof day wax ne bëgg fee gën moo mhm. fii tee gën mhm. te ki yàlla ki yàlla def ci yow ngëneel ba nga ba nga ba nga jiite aw xeet boo ca nekkaatee di leen wan ne maa leen gën rek yow yooyowoo li nga nekk dangaa soof dangaa soof da ngay mujj soof te ku ne xam na ne Aboubacar moo gën moo gën ndax ku bokk ci fukk yi nga xamante ni ba pare fukk yooyu mhm. liñ juróom yi yëpp moo leen dugal ci lislaam ashra al mubashirin bil janna mhm. ashra al mubashirin bil janna mhm. juróom ñëpp Abu Bakrin moo leen dugal ci lislaam keroog bi nga xamante ne ni jënd na teen boobu nga xamante ni jullit ñi dañ koo soxla woon biñ ñëwee Médine nga xam ne ndox ma neexul benn benn teen buy bu am ndox mu neex moo fa nekk keroog keroog Abu Bakrin jënd ko ba pare joxaat ko yént bi sallallahu alayhi wasallam ne kan mooy jënd teen bi ba mhm. pare te boo xëyee buñ ñëwee buñu buñ rangee di buñ rangee di root mhm. nga bokk ci rang bi mhm. nga bokk ci rang bi doo wane ne maa jënd teen bi kon ma leen noonu ma njëkk a root déedéet parce que teen bi ba pare te bu ñu xëyee boo ñëwee di root si danga ngay rang kan moo ko man abou bakrin moo ko jënd def ko ci lislaam keroog yéen bi def ne abou bakrin ma darra abou bakrin ma faala baada hada baada baada amalihi hada est-ce que ku mel noonu ko yaa gën kon loolu loolu dafa war nekk jàngat ci képp ku jiite. Mhm. sëñ bi dañuy wax ni. Mhm. koo xamante ni ñëpp la foo ñëw ñu tóojal la. Mhm. foo ñëw ñu jox la ñaari loxo. foo ñëw ñëpp taxaw xaar la. soo wane ni maa leen gën nag dangaa ngaa soof. moo tax takab yaani tawaadoo. mooy mise bi nga xamante ni moo gën solo. yaa ngi wax Aboubacar yi mu def. mais xoolal Abu Dujaana nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana gis Abu Dujaana mhm. benn saxaabi la mhm. suñu jullee fajar rek fu yonent bi ne asalaamaaleykum mu jóg mhm. Abu Dujaana yonent bi ne xanaa amoo soxla yooyu di suñu borom damay gis ni bés bu ne rek soo sërmalee nga mu ne déet dama am ay tut tànk yoo xamante ni xiif la ñuy fanaanoo te am naa sama dëkkandoo boo xamante ni juif la tàndarmaam moo ngi sëpp sama kër te nag su fajar jotee Mm-hmm. doomu tàndarma ya dafay wadd mm-hmm. ma bañ xale yi yeewu mm-hmm. di ko lekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni waaw kan mooy def jënd loolu Abubakar daal di jënd garabu tàndarma ba jox pour ñu abu dujaana isan mooy wane kaana mutawaadian waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, nee na leen dafa xëy neen gars yi farlu ma Abubakar de mais Abubakar moo farlu moo bi mooy suñu gisee loolu dana wax ni fa in na ngeen ma dimbali. Mhm. fekk maa ci yoon bi. Mhm. su ma nekkul ci yoon bi. Mhm. bu leen ma dimbali. loolu mooy genre politique générale. loolu naka lañ ko mën a dëpp ak léegi. contexte bi ñu nekk euh, euh, biñ ko mën a dëppalee bi ñu nekk mooy keneen njiit. su bëggee réussir ci mission day tàggat ñi mu jiite. ci ñu xam fan la leen jëmee. ndax al eh, al mar'u aduw ma jahila mhm. nit ki munta topp munta mhm. dimbale nit ki ci lu mu xamul mhm. loolu waral eh, nga gis eh, suñu candidat yi ku ci bari dem élection nga def sa sa sa programme waaw ah, lii mooy sama programme nit ñi xam ne yow kon yow ci lii nga ñu bëgg a jiitee buñ la falee ci programme boobu nga toogaat forme sa gouvernement gouvernement boobu ngeen toog Euh, ki ko jiite. Mhm. taxaw ne gouvernement bi kat par rapport ak programme bi ñu waxoon. Mhm. nii lañ ko bëgg a dérouler. Mhm. ndax programme kenn du ko dérouler ci benn at. kenn du ko dérouler ci ñaari at kenn du ko dérouler ci ñaari fan. kon programme bi day am benn cycle bu mu war a am pour mën a nga nga taxaw ne nag ñii laa ko bëgg a def ñu xam ko étape bu ci nekk ñu la cay xaar ba pare am engagement buñ la ci jàppalee ca loola ndax ab njiit du. li nga bëgg yow yaay taxaw di ko doxal mhm. waaye population bi ñooy pare pour jàppale la ca loola mhm, mhm. enseignement bi enseignant bi ci classe am ci ni muy ci ni muy ci ni muy ci ni muy liggéeyee fonctionnaire bi ci bureau am ouvrier bi ci atelier am waaye citoyen bi ci koñ bi ku ci nekk par rapport ak ni nga xamante ni nii waxee ne nii lañ réew mi dex doxe ko ku ci nekk macha allah joué ci sa participation pour man loola mën a loolu waral Abu Bakrin mhm. tenir xutba ba boobu wane na nii laa bëgg a doxalee mhm. euh, déclaration politique général bu Abu Bakrin loolu am na solo mhm. waaye ci ñetteelu taxawaay bi wala ñeenteelu taxawaay bi foofu defe naa ne moom mooy mbir mi mooy fii leen Aboubacar wax ni leen nii su ma rafetalee na nangeen ma jàppale mhm. su ma tekkul ci yoon nangeen mhm. ma jubbante mooy xaqul muhaasaba mhm. ndax Aboubacar dafa wane ci xutbaam ni njiit dañ koy évaluer njiit su nekkee ci yoon ñu ne ko waaw góoral ko su nekkee newul ci yoon ñu ne ko fii di yoon wi noonu naka lañ ko jàngat ci xutba Aboubacar xaqul eh, muhaasaba du du xarit ba léegi ci ñu Yonent bi sallallahu alayhi yar bul fàtte yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ne bokk na ci jihaad bi gën a rëy ci jihaad yi mm-hmm, mm-hmm. kalimatu xaq ala sultaan jair aywa inda mm-hmm, eh, am sañ-sañu am personnalité wu njiit wàcc aw yoon nga taxaw ne ko wàcc nga aw yoon pas pour rabaisser ko pas pour jógal ma toog ndax mënoo waaye pour dimbale ko pour mu réussir mission parce que ah, ndax bokk na ci dimbale njiit ci mission mhm. mooy heure bu wàccee aw dëgg mhm. nga teg ko ci dëgg mhm. bokk na ci yéent bi sallallahu alayhi wa wax ne juróom-ñaar yi nga xamante ne yàlla dana leen keral yow ma laa zilla illa zillu ñaar ñoo xamante ni dañu ànd ci te yàlla tax yaa ànd te yàlla tax nag leen rek moo ko mën a def mooy ànd ci dëgg ci dëgg ànd bu ci dëgg amul rek dëgg am mooy mooy ànd ba du dëgg mm-hmm. tey bari na njiit yoo xamante ni tey mm-hmm. bu fekkoon ne ñañu ña ña ñañ doon ñañ doon ànd ak ca liggéey ba ñoo ngi leen doon wax dëgg dëgg ni ñu mujjee man naa am mm-hmm. duñ ko mujjee kon dëgg alalu yàlla la bu ci xool loo ciy am ak loo ciy ñàkk Platon Aflaton euh, dañ ko wax Aristote dañ koy critiquer ci lu bari ne ko euh, benn dañ ko wax ne أراك تختلف كثيرا مع أستاذك مع أستاذك أفلاطون أفلاطون لماذا؟ mu ne leen li anni uhibbu aflatun wa uhibbu alxaq xaq lakin alxaq axaqu an yuttaba min aflatun aflatun falan mu ne leen dama bëgg naa ab platon trop mais dama bëgg dëgg waaye dëgg moo gën a yaayoo topp ko platon platon kon njiit moo tax Abu Bakri ne atiuni ma ataatullah ndax li mu njëkk a wax moo tax mhm. asidqu amaana mhm. wal kadibu mhm. mu njëkk a waxaat aussi mooy kene alxawiyu fiikum daifun kon moom ci boppam bu wàccee dëgg nekkatul nekkatul ci nekkatul ci pouvoir pouvoir moom parce que moo ëpp ñëpp doole parce que mooy mooy njiit kon bu nekkatul ci dëgg doye dina tuuti na kon nag du weddi boppam kon nag bu ngeen bëggee pouvoir bi continuer ci man mhm. su ngeen bëggee njiit li ngeen am njiit lu lu lu lu lu am bu am personnalité ba léegi mhm. fu ngeen ma gisee may waaj a wàcc dëgg mhm. na ngeen ma ci teg ndax bu ngeen ma seetaanee ba ma wàcc dëgg njiit lu doye di ngeen am macha allah loolu macha allah am na solo mais Aboubacar def na ay namage illustration yu bëri ci loolu xutba bi maa ngi koy liire ci beneen téere bi mu waxee loolu benn waaye moo tëb ci jàkka ja mu ne bés boo jàddee mhm. daañ la jubbantee suñu jaasi ji mhm. mais lii koo waxoon président loolu yi yaa mhm. kii offense la wallaahi wallaahi mais dafa ne ba ma amee ci sama kenn koo xamante ni bés bu ma jàddee rek mu jubbante mag jaasi sécurité la gis nga loolu sécurité la mais Omarul Xataab daf ma frappé loolu Omar day xutba bi mu yëgee minbar bi di xutba boobu aamul majaa ñu am ñuy maye ay tissu Mhm. Omar liñ ko may liñ ko jox mhm. waru koo mët li mu ko sol mhm. maa li mu ko ñaw bi mu commencé bëgg a wax rek am waa ku taxaw ci biir jumaa ji ni ko yow duñ la may nga xutba sa xutba duñ ko déglu tey balaa ñu laa déglu foo nga wax sa mbubb mii foo ko jële ndax ñun ñëpp li ñu am mëtuñu yére yow nga am lu buubu nii foo nga wax lii foo ko jëlee mhm. mu daal di wax doom Abdoulaye ibn Omar ni jógal tontu leen mhm. Abdoulaye ibn Omar ni leen mhm. sama papa de maa ko jox sama wàll mu booleeg wàllam pour mbubbam gën a jóg mu ne ko al aan léegi nag waxal soo waxee ñu topp la soo ñu digalee ñu def mais soo maanduwul soo waxee duñ la topp soo digalee duñ topp mais Aboubacar lu mu wax Omar lu mu wax mu ne ah la xayra fiikum mhm. in lam taquluha wala xayra fii na lam nasmaaha mhm. dëgg nekkul ci yéen mhm. yiw nekkul ci yéen su ne ñu dul wax dëgg ñun tam yiw nekkul ci ñun su ne nanguwul dëgg googu moo tax ñooñu taxaraju min madrasati rasulillah moo tax loolu def naa ne bés bu nekk war nañ koo fàttali ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite kon xaqul umma alal muraqaba wal muhaasaba effectivement mooy xeet wi am nanu mhm. bés bu ne ñuy contrôler ñu leen di jiite mhm. ñu leen di teg ci yoon mhm. beneen bi mu ngi ci wax ni mu ne as-sidq amaana wala kadibu xiyaana loolu mooy lan as-sidq amaana euh, tey soo bëggee développement ci sidqu nga ko mën a dëgg la dëgg mais xiyaana mm-hmm. it boo bëggee suufeel am réew na mm-hmm. fa xiyaana nekk waaw tey ci wàllu développement rek tey ci wàllu économie mm-hmm. su fekkoon ne tey dama am deux cent mille yu matul dara mm. nga xam ne mënuma ci investir mais nga yor di nga yor mille mënoo ci dara mais suñu boolee suñuy ñaari deux cent mën na mën na ubbi mën na defar dara mm-hmm. suñu ko bokkee def waxuma la ñu ñaar rek mais keneen sax mën na ci liggéey mm-hmm. mais loolu duñ ko mën a def mm-hmm. fii ak awma ci yow amaana amaana nga am ci man amaana amaana parce que kon déjà te buñ ko defee yëg yokkute kon lan moo ñu may yokkute gi Mm-hmm. du am am bi mm-hmm. mais sidq bi sidq bi fi nekk mm-hmm. parce que suñ ko deful ku ci nekk téye sa deux cent mille ba deux cent mille yi raaf nga lekk ko ba mu jeex te investiroo ci dara lan moo ñu xañ investissement boo xam ne mënoon nañ ci dundu ba déwén ba ñeneen fekkaa ñu fi mooy lan mooy xëyaana bi nekk ci suñ biir suñu biir ñu jàpp ne foo investir keneen keneen keneen keneen war la parce amaana mooy bu yàlla di wax ne la taxtulu anfusakum mhm. Mhm. mu waxaat ne walakum fil qisaasi xayaatun mhm. yaa ulil albaab nga xam ni kon doomu aadama du moom mooy may boppam jàmm mais mi ngi ame jàmm ci ñeneen ñi am jàmm doomu aadama mi ngi amee kóolute ci ñeneen ñi am kóolute te loolu nag bu ci dëgg dañee mhm. warante rek nekk ci warante kon kenn nekkul ci kenn ci amaana gis dëgg la gis nga xam yoon sall dafa nii waaw inna raida la yakdiba ahla aywa inna raida mhm. la yakdiba ahla maanaam kilifa mhm. du wax dëgg du wax da dul dëgg ay nitam daa bëgg a gi maanaam kilifa. Mhm. du wax lu dul dëgg. maanaam kilifa bu wax lu dul dëgg rek. martaba mu yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa wax lu dëgg ci kilifa yi dem mhm. xiyaana la. Mhm. nag mooy mooy inhiyaar. sunu mujtamaat yëpp nga xamante ni fi am yëpp mooy ñàkk kon kilifa dafa war a kon dafa mel ni ñoo ngi ci sunu wërgën bu mujj. juróomi point amaana bu dañee amaana bi nag amaana bi. mu asidq dëggu. bu dañee ci réew rek jeex na. dara amatu fa. su boobaa dañuy des benn ponk. Mhm. balaa ñu ci juróom minutes yi mhm. juróom minutes yi ci juróom minutes yi dafay wane ni dana asidq asaasu taamul. Mhm. bayn al xaakim wal maxkum. loolu la. li wax ni yëpp. mooy que ni pilier bi nga xamante ni mooy dox diggante kii gouverner ak ñu nuy gouverner mooy dëggu. xam nga gouvernance du lenn lu dul dénkaane. dénkaane. am na ñuy wax dénkaane dañ koy wax ci suñu proverbe olof dénkaane ka nga wóolu. tey fi ñu toll ñi ñu jiite ñoom lañ dénk suñu wér-gu-yaram mhm. ñoom lañ dénk suñu suñu suñu suñu suñu xam ñoom lañ dénk suñu am-am mhm. ñoom lañ dénk sax suñu diine mhm. ñoom lañ dénk suñu sécurité lan moo tax tey njiit su amee nu mu doxalee lu tax ñee yenn njiit yi ñu leen di ate haute trahison waaw walla parce que ba nga prêter serment la nga waat mooy danaa leen sàmmal seen yii yooya nag boo ca boo ca boo ca dugalee leneen loo xamante ne nii yaa ngi ko def ci xiyaana. Mhm. dañ laa war a dañ laa war a atte. est-ce que macha allah te noonu nga xamante ni noonu la nit ñi amee xàqul muhaasaba mhm. noonu la sunu borom itam sa tuxaasab. amaam allah léegi nag muhaasabatu allah mi ngi ko teg ci muxaasabatu naasi xam nga ñaari dafa am ñaari maqaama maqaama al mushahada mhm. muraqaba muraqaba ak maqaama ak maqaama ak eh, al ixlaas ixlaas yooyu yëpp ci ixsaan la dugg ixsaan la dugg parce que maqa am am egg ci martabatu muraqaba mushahada mhm. moo mhm. lay yóbbu ci ixlaas li tax ngay rus oustaz Ndiassé di gis ci yow di gis ci yow lu lu defuwul wala lu waxuwul loola du ustaz njaase rek mais dafa fekk ne muraqabatullah nga jiital nga ci jiital muraqabatullah nga ci jiital dëgg dëgg la boo fexee nag ba liñ naan qui peut le plus peut moins mm-hmm. boo fexee ba yàlla du gis ci yow lu la naqari mm-hmm. njaase dootu gisat ci yow lu la naqari waaw ustaz dafa mel ni mbi mi daa neex de mais heure bi <laughs> am doy na ba ay xam naa. Mhm. ci résumé rek. Mhm. dañuy wane discours bi. Mhm. discours la bu ñëw ci waxtoom. discours la boo xamante ni bii. képp kuy njiitu réew. mën na laa jëriñ. ñi nga xamante ñoom lañ jiite itam mën nañu jëriñ. bu njëkkoon loolu lislaam xamoon. maa ngi gis Omar na Abdul Aziz. bi nu ko falee. mu dugg ci néegu biiram. jooy jooy yu metti soxnaam si fekk fu ko woon ni ko aw xanaa pal gee neex <laughs> da kontaan bay jooy mu ne déedéet de <laughs> mun damaa xam ne jirim yii ni <laughs> xas ci mbedd mi jigéen ñi jotur ñii seen borom kër yi faatu màgget yii amuñu ku leen dimbali xale yii amuñu ku leen tabaxal école yu ñuy jànge Mm-hmm. miskin yii mm-hmm. nga xamante ni ñoo ngi dëññi mm-hmm. di di lim di lim ba rongo ji tuuru mun ñii ñëpp nag ëllëg man la ko yàlla la mbokk yi moo tax ku def loolu rek nga ko ku wax xalaat foofu war nga xalaat ngay defee su ko defee nga wax looy tàggoo incha allah li ñuy tàggoo dañ koy résumé rek ci Ahmed Shawqi ci wulidal huda ci benn bayit buñ ci mhm. indi nga xam ne moo résumé mhm. Mhm. moo résumé euh, dañuy wax ak siyaasa al islamia islamia naam mu ne ad diinu yusrun yusrun wal xilaafatu bayatun bayatun wal amru shura wal amru shura wal xuququ qadaa wal xuququ qadaa wala dëgg la moo ko résumé mu mu résumé lépp mu résumé ko mu résumé ko waaw ad diinu yusrun wal xilaafatu bayatun wal amru shura wal tekki ko xadaa tekki ko <laughs> mu ne diine contrainte amu ci jàppante rek la ah, bu contrainte amee rek diine am du diine du diine mm-hmm. ah, xelu doomu aadama la wala ak bëgg-bëggam mm-hmm. wala ak xeram waaw mm-hmm. ah. ak diinu yusrun wal xilaafatu bayaatun njiit démocratie ci ku la doy la ku la doy waaw wal xilaafatu bayaatu mm-hmm. mm-hmm. waaw tey par force ma jiite leen mukk doo dem duñ doo noppalu duñ noppali mm-hmm. wal xilaafatu bayaatu wal amru suura diisoo buñ la dénkee nag diisoo moomoo del diisoo wal xuquuqu qadaau attey attey nay tegu ci maandu rek nay tegu ci dëgg rek. dëgg rek macha allah. mu am benn climat paisible. Mhm. boo xamante ne day dox diggante. Mhm. al mahkumin mhm. wal xudaat. wal xudaat macha allah. ñu delloo ci li ñuy wax confiance. confiance rupture de confiance. bi bi bi doxoon. diggante. Euh, population bi. ak justice. macha allah. loolu daal euh, mooy résumé. macha allah oustaz euh, jërëjëf ñu ngi lay sant. ñu ngi lay sant waa Mourchid TV yëpp. ci sama làmmiñ bi ñu ñoo lay sant ngi lay sant ci xam-xam bu rafet bi ci élégance bi nga ko génnee ci yéene beeg macha allah ñaan yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla def tawfiq xam naa ni dina nga fa amaat ay yeneen yoon ndax analyse am na solo lool ci nii lañuy ñuy ñaanale sunu kilifa Seyd Mouhamed Moustapha Sy mm-hmm. ñaan yàlla gën ko yaa jàppale ndax moo ñu may occasion yii mm-hmm, mm-hmm. occasion yii yëpp ci teenam lañ koy roote mm-hmm, su ko defee itam ñi ñaan yàlla itam liggéey bi muy liggéey nga xamante ne wuqufuhu bi jaani bi shaab janban bi janb yàlla na ko yàlla fay ndax mënoon na rek yem ci ni may sëriñ bi rek toog waaye engagement politique population yëpp mu ngi ci kanamu te loolu nag loolu la ñu xamoon euh, nekk rek euh, diddal xukuma mm-hmm. mm-hmm. anti pouvoir mm-hmm. loolu sëriñ loolu la ñu xamee woon moom nag muñ ci devoir boobu macha allah du nuyu itam asdiqa yaa ni alqalam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu xirij kulet daawa yëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah di nuyu itam waa mun mun euh, muntadar irshad di nuyu képp koo xamante ni ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ñu ngi ñuy teewlu ci fi ñu toll nii wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah shukran